Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager une information. Un mbokk sénégalais fait follement mu nek 14 régions du Sénégal à won ngal kep ñi ngi leen di jaajeufal ñi nek également ci a l'hôpital ci kër de février yalla na suñu borom fëgg seen bop ngay wër ak jam ñi nek ci kasso yi nek également ci erreur judiciaire da leen fa yobbu suñu borom genn leen fa deul de ci yoonu deug ñi deddu aduna suñu borom xalal aljana fi daw ci gaay te yexé On avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité gars en continu. Ñu waxtaan

C'est un début, c'est un début parce que c'est un excellent joueur et que Albert il mérite même plus que la Macédoine, mais comme on dit, il faut un début à tout. Albert, bonne chance et merci également pour le service rendu au Diaraf de Dakar. Aliou Badji, doublez le, le défunt avec son club également. Mom Kingham Formos donc il représente dignement aujourd'hui leur club et Aliou Badji, le joueur sociétaire hein, du Casasport, donc fi ñu formé ko mu Maroc, Égypte, hein, Donc France, nous allons avoir félicitations aussi hein, et bonne continuation parce que c'est un joueur aussi c'est la relève c'est un excellent attaquant c'est un excellent mais un excellent attaquant Constance Boukame Ken Monoko donc Ali Badji bonne continuation également Nicolas Jackson aussi hein, le joueur un autre joueur formé hein, au Casa Sport moom un excellent joueur tey moo dugal match yi nga xam moy match euh, préparatoire par préparation plutôt ñom ak PSV ñoo do deux buts à un Villarreal albe kii di nak Nicolas Jackson mo dugal donc euh, un des deux buts du Villarreal Gana ba nga xam Sadio Mane mom lañu gis mo yoroon téléphone bo xam ne tëbu daaxi la aussi di Riyad Mahrez gars yi ñoo foto gis téléphone bi mu yor iPhone bi mu yor momit nango ko changer xamna aussi da ba ñenn contact ak yooyu xam nga du ñëpp aussi ñoo xarañ ci téléphone hein donc en tout cas téléphone bi tay moy def buzz téléphone Riyad Mahrez donc ki nga xam aussi mom mooy donc ki ngeen gis ni dit Gervinho donc dafa faut que Turquie dem Turquie, euh, Grèce port Salonique fara daal la daal di dem club la boo xam ne kii di Pape Alioune Ndiaye joué woon na fa laata muy dellu si waat fa nga xam ne du côté de Turquie Gervinho l'ancien joueur de l'AS Rome ki nga xam également mooy Kubo le joueur euh, du Real de Madrid nag dañ koy jaay Real Sociedad mais Real day garder aussi 50 des droits de vente yi maanaam tey bu ñu ko jaayee Real Sociedad quand même buñ ko jaayee té ñom nañ ci am 53 50% plutôt ci droit de vente qui ki également Jonathan Klaus le l'arrière hein, euh, latéral de Lance mom nak fi ni Marseille moy insister pour daal di koy euh, jënd mom nga xam révélation année bi ñu gën ba tax na ñu koy sélectionné équipe nationale de France donc Nicolas qui euh, mi ngi hein, Klaus Jonathan Klaus di wéy di wane Marseille dal am ci yakar Ekitike donc Ekitike nekk n'est que joueur xam ne aujourd'hui Paris Saint-Germain jënd na mais jënd bi nag mën nañ ne donc c'est euh, donc prêt avec option d'achat obligatoire mais nee nañ option d'achat bon. Paris Saint-Germain qui biir saison bi la ko donc moo tax ñu defal premier contrat pour 2023 mais après dañ koy daal di York. Paris Saint-Germain bi décidé euh, ba tey ak Galtier jox ki nga xam ne nag brassard bi kii di Marquinhos ne a moo conservé. conserver euh, ñi ngi doon wax nag moom lay doon wala kii Serge Sergio Ramos Sergio Ramos peut-être également moom ak Kimpembe ñooy nekk vice capitaine capitaine yi Amina Reed waxoon naa leen ko temps yi entraîné wul ak Schalke 04 ah dafa demoon ci benn club jamono ji nak nee Galatasaray la Galatasaray moo ko def proposition Amina Reed nag mi ngi réfléchir du réfléchir du xool ndax day ari wala du ari donc ki nga xam moy le joueur attaquant de euh, du Maroc ah, donc qui aussi dit euh, Robert Lewandowski gënaw bu mu Borussia Dortmund nekkoon fa révélation ñëw bi nga xam moy Bayern de Munich ah tax mu jël fa ay trophées bari bëri aujourd'hui le meilleur attaquant du monde pour Mana donc ay aussi l'un des meilleurs buteurs parce que lui muy ben attaquant du jamono mais aussi hein son départ de créer une connexion booraam Muller, Müller ak ki nga donc Sadio Magnifique, Magnifique, Kaiser Mane, ñoom la ñëpp di xaar Müller Kimmich comment ils vont jouer avec stade Mané ñoom Gnabry le roi Sané et tout en tout cas la connexion et la mayonnaise commence à prendre ki nga xam Jules Koundé Jules Koundé et ngi y a FC Barcelone nee naa euh, depuis ay semaines a ngi muy waxtaan ak ki nga xam ne mooy Xavi euh, ñii di la ñu waxoon Chelsea fi mu patron patron yi kangami, kàngam ki nga xamné nak nag kenn ko présenter bojo bojo yee sen bay ñewna muy le ministre de la défense le président même de la défense hein, le roc de la défense ki nga xam ne mooy Bali, Koulibaly hein, ne këng deuguer këng la def Kalidou Koulibaly Bali, mi nga xamné nag kii di Edouard Ndiol Koumba Mur de Gorée euh, Mendy wax na ci mom donc Edouard Ndiol Koumba limu wax lér na néna j'espère que les supporters dinañ apprécier hein, savourer li gis parce que aujourd'hui ki ñu am c'est un c'est un, un, un, joueur exceptionnel, le meilleur défenseur d'Italie, aujourd'hui qui va devenir le meilleur défenseur d'Angleterre parce que c'est l'un, pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde, Kalidou Koulibaly. Edouard au-delà, même si terrain, c'est un homme il aime prendre ses responsabilités, leader de vestiaire, donc, il apporte également sur ce plan dans les vestiaires. Kalidou Koulibaly, hein, club du dañ doon wax rek na di tâtonner di tâtonner Chelsea nag ñëw def ko donc jënd ko jënd loo xam ne tey duñ ko regretter incha allah rabi macha allah Kalidou qui va donc faire ses débuts par rapport ak pré-saison bi def ci États-Unis laataa ñu ñëw donc commencer championnat bi donc gars yi nan ngeen xalaat ci intégration Kalidou du côté des Blues de Chelsea Albert jen mi du côté xam nga ci merci Macédoine ak aussi Aliou Badji ak aussi Nicolas Jackson gars yi. woy leen di like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars yi ja. ngeen jëf et à demain